bismillah dal leen ak jàmm ñu fa seene ñëw àndaat ak yéen ci naafile juróom ñetteel bu guddi ci weeru koor di la wax bu fekkee ne ku bees nga seen bi ñu ngi lay ñaan nga abonné abonné bi gratuit la doo ci fay dara te bul fàtte activé cloche notification boo ko activé dina waral ba bépp vidéo bu ndoo youtube daal lu koy signal ñu ngi lay ñaan nga seen vidéo bi ñu dëkk si naafile juróom ñetteel bu guddi ci weeru koor da nga julli ñaari rakka rakka bi si nekk da ngay tëri faate benn yoon teg si lexlaas fukki yoon ak ñaar da ngay julli deux raka raka bi ci nekk nga tari Fatiha un fois teg si Ixlaas douze fois. sëriñ bi neen ku ko def incha allah xaraw fi ci nekk des na fi sa bindal tuyaabay jaam yàlla junni at dana mel ne ku leer xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaar fukk at yu mat boole ca mandil leen wóodi leen mel ne ku goreel junni jaam te bu ñaanee yàlla mu may ko ko te bu dekkee dana dekk waale ak leer te buy jéggi siraat comme milaax te dees na ko rombuloo juróom-ñaar fukki nit yoo xamee ne sawara yeyoon na leen sëriñ bi neen ku ko def incha allah waraw fi ci nekk des na ko sa bindal tuyaabay jaam yàlla junni at dana mel ne ku leer xeetu yonente bi salallaahu alayhi wa sallam juróom-ñaar fukki at yu mat boole ca mandil leen wóodi leen mel ne ku goreel junni jaam te bu ñaanee yàlla mu may ko ko te bu dekkee dana dekk waale ak leer te buy jéggi siraat comme milax te dees na ko rombuloo juróom-ñaar fukki nit yoo xamee ni sawara yeyoon na